بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي طالبي تريب القران كونفرنس داري مام شيخ مادول كبير باي جي نيك تي نجان فال نيو لين دي ييغال طريب القران بي ني باخو ديكو ان موجوت تي نديغلو سيرين سير ماي خليفه مام شيخ احمد دول كبير باي سيرين جاغا باي ابن سيرين سير باي استاذ مسامبول اك اساسيون بارادا اليف اك نداي داري اك مبولي مبكي جلدي ييب نيو لي اند تاخاو دي لين ييغال Euh, conférence bi ñuy amal at mu jot ren ñu jàpp ko dimanche le 31 mars atum 2024 Njang Fall en face station ba suñu xëyee 9h ñu tàmbali programme ba di ko yëgal daaray alxuraan di ko yëgal nag soppee alxuraan waaye nag di ko yëgal imam Ale Fall imam bu Njang Fall moom itam di ko yëgal képp ku yox ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ah, station parada la fii ñu leen koy yëgal di ko yëgal njaboot maam Cheikh Madou bi ñaamal at mu jot nañu ko dimanche le 31 mars 2024 ca Ndiang Fall di ko yëgal kilifa diine kilifa aday di ko yëgal njabootuk alxuraan fu waay man di nekk tey ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi la bi conférence ca Ndiang Fall en face janok station ba ba